bépp bawol bawol ne ñu ngi lay woo ci suñ combat bi la 4 juillet kii arbitre suuf tee ma jàpp ko duma ko daan ko mënoo ci dara maa la ëpp doole maa la man barke arxuraan fi ma ko teg dama doon xale ëpp ko doole kii mag la du dara man yi ngay def di fuuf tandeku yii doo dara barke ar bu arbitre suuf lee boo taxawee ma dóor la nga daanu boo bëree ma daan la barke arxuraan waa gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu yi fi nekk yëpp di nuyu suñu mbokk mbër yi fi nekk di nuyu promoteur bi di di nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu waa Pikine di nuyu waa Guédiawaye di nuyu sama mbokk Saloum bu baax a baax maa ngi nuyu waa Touba fa ma jàngee tamit quoi xam nga di nuyu waa Gàddaay waa Malika Kër Massar Malika Kër Massar Yëmbal benn baraak xam nga waa Tivaouane Peulh amuñu fenn xam waa nuyu gars yi nekk si diaspora bi suñu supporter yi ñëpp moom loolu quoi booy bi li wax nii waxu la yàgg naa ci bu moom benn moom laa ne mën a ñëw ba bëree fii nii heure bi wax loo xam ne amateur dañu may jébbi wala xamuñ ko si man non non est la lamb la lamb la est-ce que combat am la benn instant nii gëm na ma koy daal moo tax ma lekk avance am incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla non non loolu la pël man ndongo daara laa musuma def école ës ba pare mën a bëree moo tax mu nekk ci làmb ji loolu waxu muy wax moom poosar tapet moo tax say morom raw la fi doo dara tapet nga boo doon ki ngay bëree nee nañ la moo barke alxuraan waaw yow